di ko tàmbale si monsieur le maire euh, ak sunu kilifa yi ak invité yëpp waaw comme euh, ni nga ko waxee bi euh, monsieur le maire les maire bi depuis ñun suñu premier acte moo doon euh, def d'abord une visite ci école sur sous du maire euh, d'abord recueillir euh, doléances chef d'état chef d'établissement ensuite ensuite l'état état des lieux école yi gisoon nañ vraiment état biñu si le maire jël engagement dans un premier temps réparer votre école dans un premier temps nous donc école jamalay 2 la ñuy defaraat euh, toiture bi yëpp teggi ko defaraat donc pour résumer rek école yëpp monsieur le maire euh, def na fa parce que état yi ñu ko fekk woon doy na waar donc si doléance yi ñu jotoon jàppoon nañ ne ah, enseignement apprentissage yi xawoon na doy waar donc euh, chef d'établissement yi dañu ñu doon wax ne comme légui li jangale bi xew dañ soxla won euh, interaction donc dañ soxla won am machine de reproduction donc monsieur le maire si lolou la njëkk def donc école yeb jàpp nañ ne euh, am nañ machine de reproduction mu école franco arabe donc monsieur le maire bolé na si limi joxé tay inshallah mu tamit euh, case des tout petits horte donc monsieur le maire bolé nako aussi tamit si limu wara euh jappalé euh école yooyu donc su ma résumé rek bañ a bañ a guddal euh, monsieur le maire li ñu tey duma ma parce que li may wax ni chef d'établissement yi ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi fi donc euh, seen doléance si ñu waxoon yëpp monsieur le maire jël na ko en compte ba li si ëpp vraiment doxal na ko donc di souhaité war rek euh, une excellente année bi ñu ñëw enseignants yi ak parents d'élèves yi ak sunu njaboot yëpp donc maa ngi ñu lay bàyyiwaat ñu doxal incha allah. salaamaaleykum merci Seynabou ñu ngi nuyu ñëpp di jiital si nuyoo bi monsieur le maire ñu ngi lay nuyu ak sa équipe municipale nuyu kilifa yi fi ne yëpp nuyu parents d'élèves yi nuyu chef d'établissement yi nga xam ne ñoo ne si commune Yoff vraiment di. ñaan yàlla yàlla nañu yàlla mottalil année bi ñuy dugg léegi ñaanal maire yàlla jàppale ko ah dafa def lu am solo parce que commune ku bëgg mu développé booy investir investiral ci njàng ak faju te yëg nañ ne moom wàllu njàng mu si investir bu baax a baax yàlla na yàlla fay ah def lu am solo CMB lycée bi man maay président parent d'élèves lycée dépendrewul ci commune Yoff waaye xam na ne ña fay jàng ay rakkaam lañu ak ay jarbaatam daaw bi ñu bëggee toxu ci lycée bi mu jafe moo ñu jàppale ba ñu mën ci def dem toxu début janvier kooku ndëg lu rëy la jox ñu table banc jox ñu ay pavé jëlaat xaalis dolli ñu ne defar leen ba mu baax indiwaat ñu reboiser école bi yëpp lycée bi kon ñu ngi lay sant bu baax ah maa ngi wax nag au nom des dama la waxoon ne politik moom jarul coow lu bari politique jarul topp mbedd yi di wax wax ju bari il faut faire du concret concret nag mooy bu jàng jotee nga taxawu parents yi ak chef d' établissement yi ba ba ba condition yi mën a réunir ñu mën a taxawu élève bi te loolu gis nañ ne yaa ngi si bu dee santé bi passé ñëwoon nañ teew ngay jàppale poste de santé yi ak film magi leen ak ñun en tant que parent d' ah ñu ngi lay sant di lay ñaanal yàlla ñaan foo jublu yàlla na fa yiwu yàlla jublu jógee dama la wax ne lii boo ko saxalee ba sa mandat di jeex ah nit ñi kenn moomu leen man daal jàng jàngu yoof dafa bari lu sooxe ah bi nga ñëwee ndëg yaa ngi koy redressé loolu boo ko réussiré sa mandat maa ngi lay assuré ne loolu moom booy laaj doo ñax te loolu yéeg nañ ne yaa ngi si yàlla na si yàlla jàppale ah ñu kontaan lool kontaan nañ lool tey yebal nga Mansour si sa ndigal Mansour Seck ñëw na lycée ba xale yi nettuwaaye nañ ko depuis huit heures ba mu set bi nee ne suba dinañ ñëw pompe lycée bi ak CM bi désherbage bi nag moo des ñax mi xaw na bari foofu am na ay taataa yu fa ne xam naa bu ma waxalee lycée bi waxal naa école yëpp mais ñu ngi lay sant daal sunu xol sedd na di ñaanal chef détabilisement yi yàlla leen yàlla jàppale ba résultat yi ñu am bi weesu ñu am lu ko raw parce que lii firnde la pour ngeen mën a def résultat parce que lycée Yoff bi mois la ñu jàng mais dafa am soixante quinze pour cent bac te cinq mois rek la ñu toxu bu ñu yàlla dimbalee rek dañu compétir compétir sur le plan national bu ñu mën ak jàppale proviseur baa nga lay toog ak l'intendant vraiment ñu ngi kontaan di sant sama goron dëkk liim na école yi ñu jox yëpp waaye dégguma nga wax CM bi dégguma wax lycée bi waaye xam naa mais xam na lu mu ñu diggoon dinañu ko jox donte la donte la ñun lañuy ñu war a soxla yëpp mais ville de Dakar moo ñu ko war jox waaye moom dafa bokk ville moo tax ñu di ko wax loolu kon yàlla ñu yàlla jàppale mais yàlla sàmbal yaa sa équipe bi nga àndal yàlla defal la ndam lu yaatoo yaatu si mébét yi nga am si commune bi ak éducation surtout parce que ku fexewul ba say dom jang sa dëkk mooy gën a dellu gannaaw si dëkk loolu moom amul sax léegi dara amatul gis ngeen nit ñaa ngi dagg seen bàyyi seen yëpp di dugg si gaal yi dem géej ñooñu duñu ay jàngkat ay mool lañu ak yoy mais boo fexee ba say doom jàng si condition yi baax te yaa ngi si incha allah yoof feek 10 ans dinañ gis beneen yoof bu bees yàlla nañu si yàlla jàppale vraiment nuyu kilifa yëpp sant ñëpp si turu parents d'élèves yi yàlla na yàlla lafal cet mébét yi nga wax yëpp te ñu yëg te gis ne yaa ngi koy réaliser yàlla na si yàlla defal ndam lu yaatoo yaa yaa équipe bi nga àndal ñëpp ngeen baal ñu àq salaamaaleykum wa rahmatulah. salaamaaleykum ah, ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di jiital ci nuyoo bi monsieur le di ci jiital ay adjoint di te nuyoo aussi chef coutumier yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di nuyu parents d'élèves yi di nuyu suñu collègue directeurs yi di nuyu également invité yi fii teew yëpp di am mbégte lool ci boole gi ñu yàlla boole ci cérémonie bu mel nii tey ñu war a jox xale yi nga xam ni ñooy jàng ay jumtukaay yoo xam ni moom la war a jànge dañ koy rafetlu monsieur le maire parce que c'est pas la première fois euh, depuis bi nga fi ñëwee ba léegi gis nañu effort yi ngay def ci éducation dañ koy saluer di ñaan yàlla mu yokk bu baax yàlla may la ba mu ba mu yokk dafay wane rek ni yow xam nga euh, euh, sas bi la sas ci wàllum éducation te gis nañ ni yaa ngi koy yaa ngi koy doxal bu baax a a baax di ñaan rek parents d'élèves yi ñu jàppale chef d'établissement yi ci doxalinu école bi bu baax ci sàmm élève yi ba nga xam ni résultats yi ñu bëgg ci ñoom yàlla mën ñu ko yàlla mën ñu ko may vraiment kontaan nañ trop dañu représenté nag le CODEC Thierno Sarr qui est empêché donc moo tax ñu jël kàddu mais daal monsieur le maire ñi ngi lay xamal ni vraiment gars yi ñi ngi ci liggéey bi je parle sous le contrôle de kan bi nga xam ni chaque jour daf ñuy woo di nemmeeku lan moo manqué ci école yi pour que ñoom ñu taxaw ci donc loolu nag su amee dañ ci sa kanam dañ lay waxal ni biral li moom rôle bi ñu ko jox vraiment mi ngi koy mi ngi koy joué kàddu li ñu ko jàllale ci message aussi mi ngi koy mi ngi koy jàllale dañ leen ñaanal daal vraiment euh, li ngeen mën ren yàlla def déwén yëf yi gën a bari résultat aussi mën ci topp yu baax a baax a baax parents d'élèves yi jàpp ci ñun aussi ñu jàpp ci enseignants yi ñëpp jàpp ci pour que yoof mën a jëm ci kanam ni ko président ni ko saltige waxee euh, euh, réew mënul développé ci lu dul ci jàng yoof aussi mënul développé te xale yi fi nekk jàng ñu am ñu njàng mu baax njàng mu am qualité te njàng mu am qualité lii nii dafay bokk ci li koy li koy li koy dëgëral donc ñi ngi ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal ñëpp année scolaire bu baax di tàllal aussi loxo suñu collègue directeur yu bees yi nga xam ne nañ di leen ñaanal ñoom aussi yàlla defal leen jàmm ak dal ba fi bëgg ñu mën ko fa def ñëpp di ziar ñëpp di euh, nuyu monsieur le maire ba mu ko nuyoo nuyu naa ñëpp saltige président délégué quartier directeur madame le maire di nuyu monsieur le maire di ziar bu baax baax baax di am kontante si ñëw taxaw fii di wax parce que daaw si heure bi dañ taxaw fii di wax monsieur le maire ne école yi ni mu demee gënalu ma parce que dama dañ dañ évaluer ñu ne euh, almadi bi yow moom moo moom mujjee mu ne neexu mais ak euh, collaboration directeur école yi ak seen taxawaay je pense que ne ren défi bi relevé nañ da nga waxoon nga da ngay signé ak gars yi contrat de performance je pense que ne indil nañ la les tableaux am na loo ñu waxoon CGE yi ñu ngi ci toog am na loo ñu waxoon ñu ngi la koy ñu la koy fàttali mooy da nga waxoon nañu du ma joxe tey gi suma résultat indi nañu résultat ñu ngi lay laaj ñu ngi ñu waxoon CGE si turu CGE yi laa koy wax vraiment dina gërëm bu baax a baax a baax parce que man damay wër école yi des fois damay école yi di xool daje naa ak euh, monsieur Kane ak l' entrepreneur école Talla Diagne ñëw na si école ñu ngi wëri si école di xool parce que yow loolu mooy sa mbébét da nga nga ne ah man day aw ma lu dul jàng aw ma lu dul faju yaa ngi si vraiment si turu si turu euh, CGE euh, yëpp ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax di la wax tamit soo ma soo gën a mën a yokk sa école nga sa loxo sa loxo parce que soxla nañ ko parce que école dafa bari ay difficulté ku xam école directeur yi xam nañ leen may wax xam nañ ne école dafa bari ay difficulté difficulté yi nag bon peut-être kan ak euh, directeur yi bi ñu ñëwee wax nañ ko moom wax na la am na école yoo xamante ne nii dañuy am problème sax fay ndox xam ne école kon dañ problème fay ndox parce que parents yi comprendre ñu li nga xamante ne mooy cotisation annuelle yi ñu leen di parce que pour ñoom boo leen ko laajee rek sa poche nga koy def te xamuñu ne loolu mooy doxal école yi mooy fay courant des fois yi yi manquement yi si lañ koy complété vraiment ñu ngi lay jaajëfal si euh, euh, fourniture yi ñuy may gis nañ table banc yi man moom personnellement dañ ma dañuy wax ne dañu beral loxo suma école parce que école de lu ñu wax rek ne école vraiment merci beaucoup si beral bu ñu beral loxo Euh, gestu yeneen loxo yi yeneen yeneen école yi gestu parce que parce que am nay difficulté si école yi monsieur le maire école yi am nay difficulté yu bëree bëree bëri muy Tafsir Ndiaga Gueye muy Talla Diagne muy Abdou Seck muy Demba Ndoye Demba Ndoye ku fa dem barka Demba di xam ne am nay difficulté parce que dafa amoon ay ñax yu dul jeedu xaaj mais grâce à Kagu ak euh, Sonaged dimbali nañ ñu ba wàññi nañ ko mais boo yokkee seen loxo dinañu dimbali torop wax ji bari na ñu ngi siy jéggalu bu baax a baax a baax di la jaajëfalaat bu baax yaa ñu ko waxoon def nga ko ñu lay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax parce que nit moom amul lu dul kàddam waxoon nga ñu dinañ accompagner yaa ngi si ñu ngi tam dinañ la accompagner si li bëgg si gestion bu baax si école yi si taxawaay bu baax si école yi si sécuriser xale yi si école bi parce que xale yi suñu ay doom lañ may may defar benn appel si parents d'élèves association parents d'élèves ñoom bàyyi xel école primaire yi c'est-à-dire parents d'élèves association bi yamul ci lycée bi ak CM bi bàyyi leen xel école école primaire yi da leen dem di di saytu école yi di xool parce que école bi su nekk am nga am nga parent d'élève bu fa nekk ngeen organiser la vraiment maa ngi jégalu si wax bi vraiment yàlla yàlla fayal musulma na saxal la li nga xamante ne mooy di ñëw yàlla daaxal yi yàlla gën lii jërëjëf. sargal ñëwal la si en place waaw initiative bii nii comme ni ñu ko certains directeurs d'école waxee dafa nekk loo xam ne day appuyer les parents d'élèves parce que parents d'élèves bu nekk actuellement xalaatam yëpp mooy nan lay def ba doom yi am fourniture waaw bu fekkee nag la mairie avec toutes ses composantes xalaat nañ loolu mel na ni ñooñu ñooñu béy seen waar ah di leen di remercier rek comme ni ko président waxee moom moo waroon wax sax man délégué de quartier la

initiative bii bon ah waxuma woon amoon na fii waxuma woon amul mais man en tant que président de la case du Jubbati yoon la ma associé si affaire ma ne si remercié ah di delloo wax ni président peut être pour mu compléter au nom de tous les délégués de quartier. maa ngi nuyu ñep bismillahi rahmaani rahim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli maa ngi nuyu ñëpp di baal waax ñëpp di baal waax ñëpp di nuyu képp parce que tout le rek est matale di rafetlu de def nañ ko fi pour la santé de ko pour euh, éducation les plus proches collaborateurs du maire sont les plus éloignés parce que dans mon père, qui si daju ay PDG mu ne moo ami ma est-ce y avait amitié sa plus proche collaborateur boo laa defal kenn da nga koy defal ba pare li ñu naan jege peesu taxul a ñeem yàpp da nga naan ñun loolu moo ñu xaw a dal quoi ñun délégué de yi may gërëm bàjjenu gox yi ak euh, ñi ñi fi nekk ñëpp ñëpp di gërëm aji moom may seen muy dugg dama ne leen ku lim rek da ngay da ngay juum wala doo matal di rafetlu acte bi parce que c'est pas la première fois Mamadou Mbengue wax na ko sant boo fi nee si dëkk bi nga laaj baatu askan wi ñu jox la ko li am importance mooy résultat du la leen bu ñu naxante man ndég du ma téyal kenn génnam muy njaayam su ma d'accord dama lay wax carrément d'accord moom bu la neexee ak bu la neexul ma wax la ni d'accord moom parce que dama bëgg rek nga progresser parce que boo échoué je crois que man mi ma échoué moo tax euh, waaw góor baat bu gàtt la mais ndég am na lu mu tekki yàlla nga mën lu ko raw pour école yi ak lépp ak santé bi ak fépp surtout délégué de quartier yi ñu ngi xaar boobu ba léegi comme ñoo sa plus proche collaborateur man de yaakaar naa ñoo gën a sore di rafetlu lii nga def nii di gërëm imam yi ak gaa ak euh, ndomb tànk yi nekk fii yëpp parce que lii Koulibaly wax rek doyoon na parce que man dama ko joxoon kàddu pour mu wax au nom des délégués de quartier mais xam nga moom baaxaay rek moo tax mu delluwaat ma kàddu ñun daal rafetlu nañ lii

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sayyidina muhammadin wa sallam bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balaax di leen balaax di leen massaw ci coonoy aduna te di ñaan yàlla defal ñu dimbal ak xéewal ak sutura ba ñu mën a taxawee njaboot yi ndax njaboot yi ëllëg ñoo ñuy war a te day baax ci njëlbeen gi ñu taxawu leen tey taxaw boobu day ànd ak ndimbalu suñu borom moom mi nga xamante ne mooy joxe nguur joxe gu wér mooy joxe jàmm di ko sàkku ci moom mu defal ñu ko ñun ñëpp dolli ñu sutura te wax dëgg yàlla yéexee ñu ci kaw suuf ndax ñu yàgg def jëf yu méngoog ay bëgg-bëggam di nuyu adjoint maire yi fi nekk yëpp ak les conseils municipaux di nuyu kilifa ndomba tànk yi fi nekk di leen ziyaara di nuyu imaam yi di am kontante bu baax ci seen taxawaay ci collaboration bi ak président délégué de quartier yi ak délégué yi fi teew yépp ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay di nuyu bàjjenu gox yi ak acteurs communautaires yi di nuyu euh, ñi nga xamante ne ñoo amee école yi di directeurs yi di def liggéey bu am solo di nuyu président des comités de gestion yu école yi di nuyu président parent d'élèves bi di nuyu euh, administration municipale bi di nuyu it képp ki nga xamante ne yaa ngi ci wetu école yi nga nekk un passionné wala un amoureux de l'éducation su ma tuddee madame Samb Penda ndoy tudd naa ñi ci ànd ak moom ñi mel ni moom ci wàllu njàngale ci Yoff te dara yëkkatiwu leen lu dul njàng mi baax di nuyu bu baax association de quartier yi parce que am na ñu fi nekk nekk ci quartier yi di yombal xale yi seen jàng di leen defal cours de vacance ak yu ni mel ñu leen di nuyu di leen gërëm di nuyu euh, kilifa yi fi nekk yépp ak gan yi fi uyu si bàyyeekoo IEF ak ci dëkk bi yépp ñu ngi leen di dalal jàmm fii ci mairie bi wax ji nag du gudd mais dañuy sant yàlla bu baax ndax bi ñu yàlla di jox dëkk bi la ñu waxante woon ak yéen mooy éducation mooy suñu priorité te éducation mooy liggéey booy def investissement boo xam ne ah politicien mënu ko def déedéet waaye ku am vision di politique moo ko mën def tàgguñu suñu bopp nag ndax li ngay def ci éducation bu loo mën a làmb daj ko déedéet lu ñu yëg la ci. changement de comportement doomu aadama ndax yonente bi alayhi salaam wasalaam wax na ni xam-xam nañu ko uti ba Chine xam-xam boobu nag mooy déterminé mooy am solo ci nit ki ëllëg taxawaayam ci yaraki teggin ak am lu muy jomb ak lu mu mën ak lu mu war a mën a jàppale société maanaam boo yaree doom ci kër école ñëw mottali dina ci def loo xam ne ëllëg mbalit du ko jël sànni ko ci àll bi déedéet du jëlit li ñëpp bokk dugal ko ci poosam pour bëgg bëgg boppam ak makeenu boppam loolu yëpp yar daf ci bokk ci kër yi waaye it école dafa am lu rëy lu ciy dox te école it surtout école publique bi ñu amee war nañ ci góorgóorlu ndax tey ku gis Senghor ci école publique la génne ku gis président Abdou Diouf école publique la génne nga ñëwaat gis président Abdoulaye Wade école publique la génne nga ñëwaat gis président Macky Sall mi nga xamante ne nangu na ne ay wéjuram seen loxo jotul woon seen ginnaaw yegsi na ndax école publique nga jël ci wàllu wéy politique yi ci réew mi koo ci laal sa wéyjur loxom jotul woon ginnaaw école publique moo la may ba nga yegsi fi nga yegsi moo tax ñun ñi yàlla war nañu ba di mu nekk farata bu ci li nga yore dëkk bi man nag dugal alalu dëkk bi ci njàngale eh. mooy suñu priorité eh, du looy làmb ndax nit ñi li xam mooy ban la fi lan la lan la def fii lan nga defal diw loolu daanaka mooy niñ doon politiquer waaye faw ñu soppi ko nag ñun nag pare nañu pour assumer ci conséquences yi maanaam fexe ba la yoon woo xam ne fa la république war a jaar mooy yoon bi defar nation bi ñëpp a bokk nation mooy lu ñu moom ñun ñëpp te mënuñ koo séddoo te booy liggéeyal nation dangay jëmbët jëmbat boo xam ne di ko def tey mais ëllëg keneen a ci jariñ donc man noonu laa ko jàngate ak équipe bi ma àndal di wax gàcce ngaalaama nag équipe bi madame Ben Faye nekku fi dafa am gànt ak xalifa kat ak condition bi ñu àndal yépp iya. di liggéey liggéey bu am solo ndax maire mënul nekk fépp maire mënul def lépp mënul dégg lépp waaye bo amee collaborateur yu lay fekki jën yu lay déglul di la wax di taataan di jokkalanteeg mag ñi fi nekkoon ci wàllu éducation di la wan ci yoon boo amee xel as tuut yàlla nañu ko yàlla may mën nga

ndax tablement yi ñu joxe mat na juróom benn million euh, matériel reprographie bi bi ngeen fi gis muy photocopieuse yi mat na juróom benn million lu teg fourniture yi mat na fukki million ak ñeent ak lu teg donc ak nettoyer école yeeg désinfection bi boo ko xaymawee yëggal nañu ñaar fukki million juróom ñett ci rentrée scolaire bi rek ren te loolu wuute na ak ñaar fukki million yi du génne woon ci tàmbali at bi parce que dootuma defar école ci rentrée scolaire kese déedéet année bi yëpp am na enveloppe bu fi nekk boo xam ne pour defar école yi la lu yàqu ñu defar tàmbali nañ ko ci appel bi defaraat nañ école yu bari lampe yi robine yi def fa ay forage pour mën a autonomiser toilette tey école boo dem douche yi kenn seexlootu ko école boo dem xale yi mën nañ fa du toog fa ndax soppi nañ ko defaraat ko ba noppi jox école yi ay produits yu ñu koy entretenir donc loolu priorité la woon ci ñun li des ci enveloppe bi dañ ci yeggali ba décembre lu yàqu ci école yi incha allahu bi noonu lañ ko xalaate woon ñu defare ko bu desee ñu delloowaat ko ci école ndax bi ñu xaymawee ren def ci dina toll ci téeméeri million ak juróom benn fukk 160 millions ren dina dugg ci éducation ci budget 2023 te loolu it lu ñu war leeral la parce que suñu alal dañu war a rendre compte incha allahu rabbi feex fan yu néew dinañ jàkkaarloo waa dërëm bu nekk ci li ñu dénk ñu leeral leen fan lañ ko dugal ak lan lañ ci def mais ci éducation li koy yóbbu foofu mooy Talla Diagne bi ñuy yeesal Talla Diagne tey am na bâtiment dëgëruñ fee tabax ndax jege na géej te day gaaw ya. mais ni ingénieur yi mën na def fukki at du ndax it samp sampal lu du yam ak école yi di gis plan bi bu leen ko wonoon tey macha allah te ay doom yoo fa ko nar liggéey dërëm bi du génn gaal gi waaye dinañ fa defar bloc 6 classes su ma yu bees yoo xam yu mucc ayib lay doon bâtiment bu dëgër lay doon yoo xam ne di nga mën a tegaat kaw yoof mu ngi yokk amatuñu espace donc bu ñuy tabax léegi dañuy tabax tabax yoo xam ne fondation dina mën a jël ba ñaar ba ñetti étage nga xam ne lu askan bi di gën di yokk ñuy gën di teg muy gën di dem ca kaw donc loolu taala jaañ feex alxames wala altine bii di ñëw bu neexee borom bi subhanahu wa taala dinañ def pose première pierre bi ndax commencé nañu toj dañu bëggoon toj balaa école di tijji xam naa dinañ ma laajaat ne ma lu tax nga bàyyi ba école di tijji déedéet niñ koy defaree du sonal benn élève waaye nag bu ñuy xaar ba école tëj dina tombeek nawet dina metti waaye it euh, dañu bëgg alal ju ñu am ci budget bi mu yem ci budget ren ëllëg déwén ñu defaat beneen école ndax bëgg bëgg bi mooy yeesal école yépp donc loolu moo tax ñu koy def moo tax ñu teel a toj dindi gravats yi mu bañ a sonal élèves bi ndax tabax moom amul coow da ngay tabax di yëkkati te di leen ko sécuriser ba incha allahu rabbi du indi benn gàllankoor maa ngi dégg yóbbante CGE yi muy subvention yi dañ koy def ndax gor ca wax ja te sagal sa bopp weesul nga sàmm sa kàddu te incha allahu rabbi dinañ sagal suñu bopp sagal municipalité bi ndax dama leen bëggoon jox juróom benn million ci rentrée bi ma dégg ne inscription amatul ma ne ah kon war nañu toogaat évaluer ndax liñ prévoiroon ndax dina doy wala doy moo tax tey génnewuñu ko mais prévoir nañ ko pour joxe ko tey defaroon nañ chèque yeeg yépp pour ngeen dem jël seen xaalis waaye dangeen leen koy jéggal bu rentrée bi jàllee ñu gise waxtaan xool ñaata lañ ciy teg ñu uti ko teg ko ci pour mën leen a taxaw pour jàng bi mën a nekk une euh, réussite à Yoff école yi nga wax muy Tafsir Ndiaga Gueye ak euh, Abdou Seck ak Demba Anta ñu ngi ut ay koppar je pense madame la maire Adji mu ngi fi toog ñu ngi ci dox bu deex bëccëg parce que euh, bu ñëpp doon fay lempo du ma am problème mu xaalis maanaam kon xaalis bi dina ne gàññ ci mairie bi lu ñu bëgg def ñu def ko mais tey dëkkuwaay bu ne kër gu ne war nga fay lempo te bu dee téeméer la jàppal ne benn moo koy fay te loolu dimbaliwuñu ci ñu dox dox bu gaaw pour mën leen a tontu. démb maa ngi doxantu daje kenn mu ne ma papage ma ne ko est-ce que fay nga impôt mu ne ma déedéet ma ne ko fay ko boo ko fayee rek mu gaaw sa borom def ko donc loolu mooy dundal mairie donc loolu it vraiment ma bëggoon ko leeral fi may daaneele mooy photocopieuse yi daaw joxe nañ école yëpp mu desoon ort dina am benn casier tout petit am benn école arabe Seydi Hadji Malick si am benn institut islamique Seydina Limamou Laye am benn muy ñeent ci li ñu war am nag ñaar yoo xam ne parent d'élèves yi ñëw nañu waxtaan ci ak ñun muy CEM Yoff ak lycée Ousmane Sembène ñoom it ñu leen ku nekk benn loolu lu ci lu ñu war la te incha allahu rabbi yi ñu leen jox moom la xale yi di wax dernier cri am na sax wifi waaw doo leen yem ak ort ndax bokk bëgg-bëgg bëggee bokkul njàngalee yi bokkul mais yi ñu leen di jox incha allah fi sax bokk na ci donc pour wax leen ne li ñu leen waxoon rek li ma mën mooy sagal sama bopp ci kàddu te dinañ ko def maire de Dakar aussi waxtaan nañu ci kaawu CM bi euh, am na espace débat bu ñuy tijji ñëpp xelaat ci ndax zone APEX si amul école primaire. te askan waa ngi fay màgg bu baax classe yi na ci ginnaaw est que duñ ko toj def ko école primaire mu ànd ak CM bi nga xam ne continuité day am CI ba troisième nga mën a créer un pôle d'excellence loolu xalaat la buñ tijji muñ ci waxtaanee mën nañ ci ut solution mais weesu nañu parce que boo xoolee statistiques yi ak ni Yoff di màggee fex fukki at dootuñu am place pour école te école publique wax naa ko sànq moom laa war a yor moom laa war a dugal alal école privée mënu ko def li am ci école privée si yor ëpp na téeméer munuma leen boole ci li may def ndax li ma yor xaalis la publique école publique la war a dem donc it war nañu xalaat fex fukki at fan la Yoff jëm ñu wut espace denc ko pour tabax yeneen école parce que li fi nekk ci école doyatu te xale yi ma gis ci dëkk bi booy doxantu guddi ah macha allah macha allah macha allah donc war nañu góorgóorlu vraiment ba taxawu leen euh, fi may daanele mooy lan la ñu joxe joxe nañu cahier 32 pages 6000 cahiers commandé nañu ko 7000 cahiers de 48 pages 7000 cahiers de 96 pages 7000 cahiers de 200 pages cahier double ligne avec pour euh, yenn classe yu ndaw yi euh, junni ak juróomi téeméer règle joxe nañ ci ñeenti big juróomi junni yu xonq yu ak yu bleu bu nekk juróomi junni crayon juróomi junni ardoise ñeenti junni boîte de crédit euh, yu weex yeeg yeneen yi bu nekk def nañ si juróom benn téeméeri boîte def nañ nit la nga xamante ne jëm ci école orti ak école préscolaire yi lu jëm ci ay ciseaux col ay fu xale yi di suturloo li ñuy dessiné ay basang ak lépp boole nañ ko ci maanaam daal ren liñ ma laaj ci école yi su ma ñu nag mairie bi ak conseil municipal bi dinañ ko à 100% ci wàllu fourniture donc loolu loolu mooy li ñu war en tout cas je pense euh, tënk nañu lépp di ñaan nag parents yi ñu jàppale ñu le développement il est participatif du maire rek déedéet école it bi ñuy defar dañu ne nañ jënd li gën a baax ci école yi mais tey boo demee robinet école yëpp sàcc nañu loolooy dëgg c'est la triste réalité contact yi dañ koy buxati yóbbu bu ñuy defar nañu suturaal bañ ñoo yàqal ndax fu sa doom di jànge nga jël làmp ba yóbbu jël euh, contact ba yóbbu jël robinet ba yóbbu suba duñ sawar def vidéo projecteur parce que boo ko fa defee ñu dajj ko yóbbu ko donc am na loo xam ne du patriotisme du yëfu nit wax dëgg yàlla ma ngi jégalu ci kàddu bi mais loolu xaw ma duñ koy tudde doo xam dafa ñaaw loolu dafa ñaaw waaw école it wax dëgg yàlla war nañ ko sàmm ndax du fu ñuy bëree du fu ñuy bëree du fu ñuy feetoo déedéet école sacré la fu ñu war a jàngale xam-xam bu waajal suñu ëllëgu dëkk en tout cas ma ngi ciy woo directeur école yi gardien bu ci jubalul ngeen wax ñu ko ndax man weesu naa fu may maslaa fu may waxtaane sanctionné lañ toll parce que mënuñu jël ay millions def ko ci école yi at mu jot ñu ne la li yàquwaat na te boo demee du lu yàqu luñ sàcc la loolay loolay dëgg bi président délégué dañuy dajji matériel bi di ko yóbbu. responsabilité am la parce que entrepreneur bi jooytu nañu ko jooytuwaat ñu ko nee na robinet yi kenn damm ko dañ ko démonté ba pare fatt ko. maanaam ci ko def plombier la xam na lu muy def contact yi dañ koy buddi jëlaat fiir dugal ko ci biir ki ko def électricien la donc nañu seetaat suñu bopp bu ñii di gas ñii di suul kañ la ñuy jëm kanam da ngay ubbi regard fekk si ay xeer mu fatta koñ bi yëpp nga dem APEX si fan yi ak yeneen zone coffret courant yi la ñuy daj génn fusible ko wala sànni ko ñu ngi def semaine de l'éclairage public benn semaine la ñu mais ñu ngi ci fukki fan ak juróom fu mu waaye bu ñii di gas ñii di suul kañ la yof di jëm kanam kañal la ñuy am développement loolu nag neexul ci xol parce que dëkk bi lu yàqu ñu ne maire dañ koy assumer ndax ñoo ko laaj mais way ngal la ku ñu dimbaliwul bàyyi ñoo ko suñu liggéey ñu liggéey ko ci jàmm sa salaam en tout looloo doon kàddu yi euh, mais noonu lañ mën waxee parce que nag lu ëpp tuur te boo plainte woon jàpp sa doom jàpp sa mag wala jàpp sa rak loolooy dëgg waaw ah, mais nañu seetaat suñu bopp taxawaat suñuy école ya. waaw vraiment daal maa leen di sant di leen ñaanal maître ah dinaa leen challenge de ren première école day am enseignant day ndax it war nañu récompenser élèves mais yéen it war nañ leen récompenser donc école ci leen modalité yi ñu récompenser école bi ci gën a set sa alentour école gën set ñu récompenser la démb ñu ngi nettoyé école yi école Abdou Seck voisinage bi dañuy jël seen balit ci biir école bi loolu nag nuñ koy tuddee yow école yow kër nga def sa mbalit jël ko ci école fu sa doom mu nar a jàng jee moo tax ñu ngi ñu ngi wax ne ku artul di nga àtte waaye nag li ma wax nit ñi rek mandat bi moom muy benn muy ñaar bu yemee ci benn baax na bu dee ñaarit baax na waaye bu yemee ci benn dëkk bi jub moo ma gën a lépp waaw ndax it euh, koo sanctionné mu mer dafa leen jëm ndax école yi moom suñu patrimoine la du ñu bàyyi kenn duñu ko yaaxal en tout maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal année scolaire yu jàmm yàlla defal leen ndam yu weesu seen jot te ñu waat fi di sargal wax dëgg yàlla école yi nga xamante ne ñoo gën a performante loolu incha allah ren réfléchissez sur les modalités ñu mën ko appliquer asalaamaaleykum wa rahmatullah allahuma salli ala sayyidina Merci à, toutes et à tous. Nous portons nos cordiales salutations à l'ensemble des invités ici présents qui représentent euh, le bureau municipal, le conseil municipal ainsi que l'administration de la municipalité, les autorités coutumières, imams, les présidents des délégués de quartier et les acteurs communautaires tels que les Badjinogor et les associations de quartier, les présidents des comités de gestion des écoles, les parents d'élèves ainsi que les directeurs. nous, venons, en ce jour, en prélude de la rentrée scolaire, sacrifier à la tradition de remise des fournitures de bureaux, du mobilier scolaire et du matériel de reprographie au profit des établissements publics de la commune de Yoff. Cette année, nous avons complété le programme d'équipement en matériel de reprographie pour les six écoles restantes, dont deux préscolaires, deux écoles à caractère islamique et social, l'école arabe Sidi H Malixi et l'institut islamique Sidi Ali Mahmoudaï al-Islam, ainsi que la case des tout-petits et l'autre. Nous avons fait une extension dans le cadre des compétences générales au profit du Centre de Yoff, qui est une école qui souhaitent tendre vers l'excellence, ainsi que le vice Ousmane Sembeli. Nous avons cette année dégagé une enveloppe globale de 160 millions destinée à l'éducation et spécialement pour la rentrée scolaire une enveloppe de 28 millions pour l'acquisition de tables bancs, de matériel de reprographie et de fourniture. Nous allons cette année aussi procéder au renouvellement de l'école Tal pour une valeur de 100 millions nous souhaitons que les établissements scolaires soient attractifs, tant au niveau du cadre qu'au niveau de l'enseignement qui est dispensé. Nous avons aussi dégagé une enveloppe de 20 millions utilisée depuis janvier 2023 pour une réflexion continue des établissements sous la compétence de la municipalité. Nous avons fait pour choix de nous investir dans l'éducation au cours de ce mandat, afin de promouvoir l'excellence et de préparer la jeunesse yofoise à être des acteurs positifs de la nation sénégalaise. Nous avons fait de l'éducation une priorité. Parce que le Sénégal tend inéluctablement vers le développement. Et il nous faut préparer la jeunesse afin qu'elle puisse s'assumer et participer au réellement de ce pays qu'est le Sénégal. Nous exhortons les élèves à apprendre, ardieusement avec discipline, de même que les enseignants, à avoir beaucoup de tolérance, mais enseigner avec intelligence, afin de pouvoir préparer cette jeunesse-là au défi du monde de demain. Nous remercions les parents d'élèves présentés ici par les CGE pour leur engagement sans faille pour l'amélioration continue des conditions d'éducation et d'apprentissage de nos frères. Nous les invitons à rejoindre encore cette dynamique pour faire de l'année scolaire 2023-2024 une année de succès. Parce qu'effectivement, il faut l'avouer, Yoff a fait un grand bond qualitatif et quantitatif au niveau du secteur de l'éducation. Et cela a été fait par le concours des élèves qui se sont donnés à fond. Des enseignants, qui ont su coacher les élèves, des directions qui ont su manager, des parents qui ont su accompagner et de la mairie qui a su mettre les moyens. Je pense que notre dynamique s'inscrit dans une logique progressiste. Nous sommes à 160 millions cette année et vivement que pour 2024, nous puissions être à 200 millions au minimum afin de prouver au Sénégal, à Dakar, que Yoff doit et au centre d'excellence en matière d'éducation. Donc nous ne serons terminés sans lancer un appel à plus de discipline dans le cadre de la gestion des écoles. Il n'est pas concevable qu'on puisse procéder à des réflexions continues Aujourd'hui, nous avons des toilettes, parce que les toilettes posent des problèmes dans les structures scolaires de la commune. Les réfectionner et y mettre un matériel de qualité. Faire de, de la réfection de l'éclairage au niveau des écoles et que ces matériaux-là puissent être vandalisés. Donc, c'est des faits inacceptables. Et nous prions à tous les directeurs d'école d'être exigeants avec le personnel municipal mis à leur disposition et de ne point hésiter à dénoncer afin que des sanctions puissent être prises. Parce qu'il est hors de question qu'on puisse injecter de l'argent public et que cela puisse être dans une dynamique de sabotage et des actes qui ne concourent point à la réussite de nos programmes et à l'atteinte de nos objectifs en matière d'éducation. C'est ce que j'avais à dire et cette année, comme je l'ai dit en Wolof, nous allons challenger les écoles. Nous allons lancer le but de l'avenir écoles la plus propre, la mieux entretenue et la plus performante afin qu'on puisse naturellement faire de York crise d'excellence dans l'éducation. Outre le matériel de reprographie, nous avons mis à disposition de la communauté éducative, c'est-à-dire des établissements scolaires et des personnes dont le besoin, plus de 6 000 cahiers de 32 pages, 48 7 000 cahiers de 48 pages, 7 000 cahiers de 96 pages et 7 000 cahiers de 200 pages. Sans oublier les cahiers de double ligne à hauteur de 1500 unités, les règles de 30 cm à hauteur de 4000 unités, les stylos bleu et rouge 5000 unités pour chacune, les crayons noirs à hauteur de 5000 unités, les ardoises 4000 unités, les boîtes de craie rouges et blanches à hauteur de 600 boîtes chaque rubrique, sans oublier le matériel préscolaire, Allons des pots de chambre en passant par les nattes, les gouaches de peinture, les crayons et tout autre objet utile à l'apprentissage de nos chers enfants du préscolaire. Globalement, la mairie a investi 14 millions 500 000 francs dans les fournitures scolaires, 6 millions de francs au niveau du mobilier scolaire, 20 millions pour la réfection des écoles sur l'exercice budgétaire 2023, 6 millions pour le matériel de l'ornographie, et plus de 100 millions pour la réflexion de et 1 million pour la désinfection et le déploiement de, les, toutes les écoles en prévu de la rentrée scolaire. Donc, chers parents, chers corps professoral. Chers élèves, je vous souhaite sur ce une bonne année scolaire 2024. Merci beaucoup. Inch'Allah SM prenez les dispositions qu'il faudra avec l'administration pour jàppale école yëpp ku nekk jot sa matériel ñu tàmbali ko tey ci ngoon ba suba ci ngoon nga xam ne alxames dañuy dem nemmeeku ju école yi ba noppi nag continuer andak ak ñoom ci liggéey bi incha rabbi